asalaamaaleykum mbokk yi ñu am mbégte di sant buur yàlla borom asamaan suuf di kaat fii seen jataay Sénégal ca kanam Sénégal ca kanam wala suñu réew mi nu ñu koy xalaatalee xool yi ko gàllankoor si fànn yëpp jëmale ni saafara ngi réew mi suqali taxaw réew mi ñëpp fa ñu mu yegg Sénégal réew la moo xam suñu borom borom asamaan suuf da koo beral loxo ndax ñun dara manqué ñu te jomb lépp lu doomu aadama aajoo si kaw suuf ngir jëm kanam borom def na ko fi muy géej ay dex ay déeg suuf su nangu combiné ci biir suuf si combiné ci biir ndox mi suñu borom defal ñu li ëpp solo mooy nit yu am xel xel rek koom la saa ni jëlee xelam daas ko naamu ko bës ko sotti ko xelli ko nasal ko jam ko xel moom da koy jural yiw yoo xam ne njottam mu ne si woon a yegg sax ndax ñun Sénégal xéwal yëpp ne fi waaye sunu réew mi ba léegi ñun béyaguñu si béyaguñu si dëkkuwaay lekk ak naan dem ak ñëw mbay napp sàmm wér yaram jàng ak jàngale béyaguñu tey si liggéey mbedd yi jikko yooyu yëpp ni muy doxee gën lan moo tax ak lan mooy saafara si saa su ne dañuy am gan yoo xam ne dañu ci dikk ngir indi si ay leeral tey ñu ngi si ànd ak Pape Diop Pape Diop moom Euh, day dawal oto wu député ànd si ak Mame Tine moom conseil agricole et rural la maanaam ñi nga xam ne daal dañuy xalaatal nan la ñuy fexe ba mbay mi ak kaw gi gën a suqaliku Mame Tine di la nuyu la dal la ziar. maa ngi lay euh, euh, conseil agricole et rural mooy lan. bon conseil agricole et rural benn nit la boo xam ne ne dañ ko tàggat. ñu boole ko ak euh, producteurs yi muy ànd ak ñoom di xool nu ñuy liggéeyee. kan moo la tàggat. Euh, ñun dañu formé wu benn école léegi après bu ñu créer agence national de conseil agricole et rural. muy ANCAR ANCAR. Mhm. léegi ñun ñu bokk si ñu si jël. léegi ñu nekk euh, ñoo xam ne ne dañu dispatché. kon yow agent wu ANCAR nga. agent wu ANCAR la maanaam daal fonctionnaire nga. fonctionnaire waaw en quelle sorte. léegi ANCAR googu moom. liggéeyam moom mooy jàppale dooleel mbay mi ak kaw gi waaw léegi yow euh, kon dangay dem si biir kaw gi yëpp fu baykat ne rek nga dem fa pour di ko xalaat di ko xelal ak di ko dooleel waaw xam nga ANCAR nu mu bindoo mooy ne ne eh, dañu jël dañu jël euh, euh, ñu gën a ñu gën a yor mbay mi mooy au niveau des communes ñu yóbbu fa seen ndaw yi pour ñuy ànd ak euh, euh, béykat yeeg sàmmkat yeeg nappkat yi parce que bu ñuy wax euh, béykat en général la ñuy wax quoi léegi dañuy xool ñoom lu ñuy yëngu. Mhm. ñu xool lu ñuy yëngu lan lan lañ ci mën a dolli wala lan lañ ci mën a jëlee pour fasaare ko feneen ñeneen mën si jëriñu. yow si yan gox fa ngay intervenir. waaw zone dakaar bi lay lay intervenir. yow bi waaw maanaam zone Dakar fi ñuy béyee mooy zone ñaay bi. waaw mais Dakar béy bi xam nga Dakar. bu tëngéej dañ fay béy. dëgg la parce que boo waxee Dakar nit ñi dañuy def ne ne Dakar euh, amul amul ay tabax kese la mais mbéy mi mu fi. da région de dakaar région de Dakar. Mhm. bu ñu waxee mbéy mi pratiquement luy gën a euh, dundal Sénégal dafa naa Dakar lay jóge ah. parce que boo demee ba jawbe produit yi mu fay fekkee yëpp si ñaay bi lay jógee si surtout région de dakaar boo euh, mais ñaay bi li ñu fay def moom mooy légumes yi. waaw moom laa la wax c'est-à-dire moomu am na fi. am na sàmm bi am na fi euh, kii bi aussi mbéyum euh, nawet euh, noor bi nawet bi aussi am na fi. dañuy bay noor di bay nawet Dakar parce que ñi ne fii ci ñaay bi ñoom dañuy roose di dañuy di bay. waaw justement cest à ñu si bari dañuy roose mais am na si ñoo xam ne aussi roose boobu am nañ si ay jafe-jafe. bon léegi yow mbay mi Sénégal fi mu toll nii mbay maa ngi dox wala doxut. non mbay mi xam nga ba Sénégal dinañu gis ay programmes yu bari ñuy wax mbay mi. di wax loo parce que di wax loo laa wax sax ministre yi ñuy wax ay affaires yoo xam ne ne vraiment fekk euh, accompagnement bi demeewul nu mu war a demee. di wax loo ministre yi lu amul. loo xam ne ne pratiquement euh, dama bëgg a wax ne ne du priorité yoo xam ne ne loolu la ñu waroon a def. comme lan par exemple bu ñu jëlee euh, bu ñu jëlee par exemple nga jël programme mu tracteurs yi rek laay wax. Mhm. nga jël 1000 tracteurs nga ne da ngay équiper kii bi monde rural bi mais mille tracteurs tracteurs nga dépensé si 43 milliards. nga xool par exemple benn euh, tracteur bi 43 millions même bu ko état bi subventionné donc béykat bu ko mën a jënd bariwul. amul sax waaw donc lu ñu waroon def tracteurs yi mooy par exemple ñu jël tracteurs yi joxe ko au niveau des communes communes yooyu téye ko. béykat bu bëgg a euh, defar toolam ñu xool nuñ ko. koy ah, bu boobaa tamit dafay soxla beneen dispositif parce que il faut ñu tàggat communes yi si tracteurs yooyu nan lañ leen di gérer. waa mais moo gën a yomb ñu jël tracteurs yi ne jëndal nañ ko béykat yi alors que au finish si toolu kii lay nekk wala. kenn xamul toolu borom doole waaw waaw. waaw parce que fii euh, xam nga affaire tracteur. Hmm. affaire formation la ak affaire suivi. Hmm. Euh, te sunu béykat yi léeg kenn formé wu leen si loolu te suivi bi tamit dafay xaw a des mais léegi. yow mii tey maam Tine lan moo la fii indi lan nga bëgg leeral. non cest à tey dama bëgg wax ne ne euh, euh, état bi bu mu jëlee lu mel ni par exemple agent de conseil agricole et mu teg ko si dëkk bi donc ñooñu ñu ngi waxtaan ak béykat yi donc programme boo xam ne ne dañ koy def dañ ko war a dañ ko war a euh, dañu war a tenir compte waxuma sax ñu ñu kii mais au moins ñu tenir compte liggéey liggéey ñooñu parce que boo xoolee ay projet comme WAPAC FNRA ñoom ñu ngi liggéey ak mu ngi permettre ñuy xeex ay affaire yu bari donc boo xoolee par exemple savoir faire paysan bu ñu def temps yële donc permettre nañ nit ñi wane un loo xam ne ne euh, euh, producteurs yi ñu ngi koy def te peut-être fësul ñun aussi jox nañu occasion ñu xool ñoo xam ne ne si si si gox yi am na lu ñuy liggéey loo xam ne ne jar na ñu wane ko ñu wane ko. boo xoolee Mame Tine euh, est-ce que affaire bi mu nga ko gën a tënk mu gën a leer bu baax suñu bopp yow lan moo la fi tax a ñëw. lu ma tax a ñëw mooy ñi xam ne ne euh, euh, béykat yi programme yu ñu fiy def yëpp il faut ñu tenir compte ah ñoom seen besoin réel boo xoolee exode. loolu kan moo ko war a def ministère de l' agriculture. ministère de l' agriculture boo xoolee mini par exemple ministère. de l' nga bokk. waaw mais c' est dire xam nga déjà. ANCAR da nga bëgg wax ni ANCAR liggéey bi muy def ministère de l' agriculture du si bàyyi xel pour euh, jëfe jëfee ko. mais si bari. parce que. Euh, lu tax loolu parce que au niveau boo xoolee euh, ban ministre ban ministère moo ëpp lu ñuy changé ay ay ay ministre ministère de l' agriculture boo xoolee. pourtant ministère de l' agriculture docteur Pa Abdoulaye Seck bi mu fi nekkee ba léegi dafa stable de. non cest à moom mooy troisième ministre si euh, kii bu mag yi ñëwee. waaw mais dama donc dama bëgg a wax moom laa la wax saa à ministère yi cest à il faut que ministres yi. lu ñu leen seen techniciens yi leen wër lu ñu leen di wax nañ koy xool bu baax. mais docteur Pa Abdoulaye Seck par exemple pour pour pour wax ko moom bon ñëpp xam nañ ni affaire yu ceeb. Africa Rice yooyu si la doon yëngu te bi mu ñëwee si ministère bi ba léegi euh, moom moo fi gën a yàggagum de. moom laa la wax parce que ministère bi mu ngi doog am technicien bu ko jiite. parce que avant ay politiciens lañ fa doon moo fi nekkoon kii moom moo fi indi woon ay PSAP. donc ingénieur agronome voilà donc. donc la bëgg a wax ministre yi il faut ñu vigilant par rapport ak lu ñu leen di wax dama lay jox dama lay jox euh, exemple ak exemple boo xam ne ñu ngi koy waaj a def euh, exemple bu ñuy def laay commencer parce que au niveau de Sangalkam ñu ngi am na programme boo xam ne ñu ngi waaj a jël ay jën ay jën def pisciculture foofu Tunkara euh, euh, nga ñëw dakaar Bargny mu ngi fi Yène mu ngi fi euh, à côté kii Kayar mu ngi fi ñooñu ñëpp di pour def jën yow nga jël pisciculture nga bëgg ko def fii ak coût yu muy engendré yëpp jën boobu prix bu nga koy jaay est-ce que mën nga ko jaay ba mu compétitif fii. xalaat bi baaxul. Ah, baaxul. te loolu te loolu c'est pas la première fois xalaat gis nga Djiboka ñëw na fi ma fekk euh, kii euh, barrage yu Ponti ñuy jël ay jën di ko sotti foofu naan dañuy empoisonné kii bi alors que au même moment am na ay béykat yoo xam ne ñu ngi à côté seen problème moo doon naka la ñuy amee pompe boo xam ne ne di la leen mën a waaw léegi euh, projet pisciculture bii ngay wax nii nga xam ni baaxul mhm. kan moo ko am ana ñoo ko def te xam nga c'est parce que c'est parce que peut-être léegi ana xanaa bokkul non xam nga ministère kii la nekk euh, euh, ministère de la pêche. Hmm. mais xam nga Omar Gueye mooy moo moo nekk Sangalkam ak yooyu. mais ça kon c'est projet politique. ah bon yaa wax. Ah, wax <laughs> non dama bëgg wax ne ne. cest il faut ñuy xool te programme yooyu mën naa la ma joxaat la beneen. am na par exemple bateau bateau interurbain yi ñu doon wax. tëggee mais bu ñu koy defar boo xoolee fu ñu ko samp da lay wóor ñii dañuy sabote. parce que am na ñoo xam ne ne lu leen intéressé mooy nañu sànni marché bi ñu am si dara ñu dem te loolu techniciens yi wër ministres yi en général la donc il faut que ministres yi loolu ministère Omar Gueye la ba léegi non dama bëgg a wax rek donc xam nga njëkk naa si ministère agriculture mooy affaire tracteur yi hmm. donc dama la bëgg a wax ne ne nu ñuy fonctionner du loolu gis nga euh, euh, xale yi ñëw en exode rural ñu si bari koo si teg si tool mu mel ni néegam la may parce que xam nañ ko léegi léegi kii bi ah euh, ceeb bi ñuy wax Euh, Mame Tine mhm. ni que 2017 euh, dinañ yegg euh, autosuffisance loolu dina mën a nekk bon directeur Samba Kanté man maa ngi koy nuyu moom nekkoon na directeur ANCAR si ANCAR mhm. directeur régional donc xam nga dëkk dafa am loo xam ne ne déjà boo ko defee si xel yi rek déjà baax na mooy ne ceeb bi tollu na woon na foo xam ne nit ñi def na nañu ceeb bu ñu indiwul fële rek mënuñu. Euh, euh, mais dina mën a nekk wala du mën nekk. non c'est-à-dire xam nañ ne mënuñu atteindre kii bi à 100 pour mais au moins. ban pourcentage nga xalaat la ñuy. bon xalaat naa ne peut-être dinañ dem ba 60 70. wala loolu ñoom Waly Diouf euh, Waly Diouf moom moo yor programme autosuffisance boobu si wàllum ceeb. Mhm. di ko delloo njukkal ku am moom technicien la. Mhm. politigul te vraiment mu ngi si mu ngi si bay waar mais ministre bi tamit mel ni war nañ ko delloo njukkal parce que da nga ko wax léegi. Mhm. am solo mooy. du affaire politique xam nga moom du politicien. Mmh. Euh, technicien la. Mmh. moom mbay ceeb bay ceeb la xam. Africa mmh. Rice la nekkoon. Euh, te ñooñu xam nga liggéey lañ xam du yëfu euh, caaxaan te bi mu ñëwee ba léegi tamit. gis nañ tamit mu am ay gis nañ mu am stabilité. loolu benn la beneen. nga wax lu am solo. mooy affaire autosuffisance maanaam dinañ doylu ci ceeb déjà wax bi rek ñu koy wax rek. dafa am solo. parce que wax benn mbir moom mooy tax nit gëm ko te gëm googu moom mooy tax nit def jeego yi tax nga mën koo réaliser mais dama foog ni yéen euh, seen ministère bi tamit war ngeen gën a mën a articuler yooyu yëpp quoi entre ANCAR ngeen gën a mën a liggéey ak waa ANA parce que tamit loolu euh, njaaxum yooyu su amee après ñun ñëpp ñun ñoo koy euh, ñun ñoo koy de parce que suñu xaalis tracteur yooyu ñu nar a jël fii dugal ko si kaw gi te waa kaw gi duñ ko mën a utiliser suñu xaalis la waa ANA bu ñu defee seen programme boobu programme bi doxut loolu sunu sunu xaalis la euh, loolu yëpp war nañ si gën a góorgóorlu Pape Diop. oui yow chauffeur député nga. waaw. Euh, fonction publique ngay liggéey. non non. Euh, yéen ban statut ngeen am. amuñu statut. ñaata député bu nekk dafa am chauffeur. waaw député bi am nga chauffeur. léegi yéen nan lañ leen recruter. nu ñu recruter yomb na ci législative yi ñëwoon 2012. donc euh, daanaka ñun ñëpp àndaloon na ak euh, député boo xam ne avant ngay nekk député sax chauffeur boobu nga àndaloon. Mm-hmm. nga ànd ak sa mu nekk sa patron ngeen di liggéeyandoo ba ni ngeen ñëwee assemblée nationale. donc yow patron ba nga doon liggéeyal sa jamonoy politique bañ ko falee moom moo la indaale ñu defal la contrat. déedéet loolu ñàkk contrat boobu sax moo tax ma ma gën a. amu leen contrat amuñu dara. am ngeen bulletin de salaire. amuñu bulletin de salaire. nu ñu leen di fayee. main à main. député bi moo lay fay wala assemblée moo lay fay. député bi moo lay fay am na ñu assemblée bi di fay nag. ñaat lañ leen di fay. ah am na ci ñu am soixante dix mille am na ñu am cent mille am na ñu am soixante mille. yow ñaata nga am. man mënu ma ko wax nag. lu tax. ay mënoo ñëw ba télé tamit non xam nga fii tamit da affaire dafa war a leer na leer Pape Diop lan ngay nëbb si loolu mënoo ñëw fii di wax ay problématique ñu lay wax ñaata ngay fay ak nga ni mënoo ko soixante dix mille soixante mille ak cent mille nga ni man cent mille laa mais chiffre rek laa la jox ci jox ma chiffre voilà hmm. chiffre laa soxla euh, pour man wala pour pour yow yaa fi toog waaw man am naa cent cinquante mille lu tax yow nga ëppale ñeneen yi bon xalaatu man damaa leen ëppale sax. ah nee nga 60 000 70 000 100 000 moo am yow rek yaa am 150 waaw man loolu laa négocier man tamit bi may bi may bi may. waaw ah, loolu dafa am solo ku am fula la. Mm. loolu négociation la bon euh, Pape Diop chauffeur député yëpp donc mun nañ ni député bu nekk chauffeur donc xam nañ ni am na ñaari député am. 150 député moo donc 150 chauffeur am. waaw bon léegi mm. yéen seen statut lan la. ñun chauffeur yi. Mm. amuñu statut. ñun rek euh, ñi nga xam ne ñooy député simple yi. ñoom dañoo am seen chauffeur bopp. Mm-hmm. mooy ñi nga xam ni ñoom nañu àndal mais am na ñoo xam ni membre bureau nañu par exemple ñoom dañu am seen chauffeur sax mais dinañu am beneen possibilité jël chauffeur ci biir assemblée nationale bi parce que assemblée na chauffeur yi fa nekk. c'est ça ñoo xam ni ñun ak ñoom bokkuñu statut. donc ñun nga xam ne dañoo àndoon nag euh, ñun ñoo daan àndoon député simple yi. Mm-hmm. ñun ñun ñoo ànd ak suñuy doolee bopp rek. waaw amee léegi loolu mooy yow tey fi mu toll nii député bi moo la jël. en tant que personne privée. oui par en tant que député. oui waaw kon kay yéen amu leen loo leen fii député ah. fii chauffeur u man par exemple su ma jëlee chauffeur sama kër. Hmm. du ma ko defal contrat. parce que réew mi noonu lay def kan moo fi am tey fii euh, ku lay liggéeyal domestique bu lay liggéeyal sa kër. Hmm. defal ko contrat. mais lu tax ko defal. mais parce que réew mi doxewuñ noonu. mais loolu dafa war a dañ nag Tounkara lu tax doxewuñ noonu moo tax mu war a dañ. loolu moo loolu lii ngay wax nii moom la ñu moom la ñu war a dindi du question chauffeur bi. muy jànk bi parce que fii Sénégal rek nañ yabee chauffeur ah ak ku ñëw rek damaa bëgg jël chauffeur dem jël chauffeur baa nga ne damaa bëgg jànk dem jël jànk mais lu tax boo xamee ni yow boo jëlee jànk parce que fii nañ ko yebee mais bu dee est loolu am na fa sañoo lu tax loolu parce que réew duñ benn waaw léegi nag suñu réew bu ñu fekkee ñun dañuy roy ci tubaab bi bëgg mu mais ah, ko mën pour état am xaalis ah, ko versé ci ah. ko defee defal ko chauffeur bi defal ko gardien bi defal ko jànk bi kon xam nga tey jii yu bëri mun naa yaakaar ni sax ni tey suñu Sénégal mun naa. gën a président de la république jànq ba koy liggéeyal këram amul contrat loolu mun naa ko wax léegi. Ah amul ministre amul ministre bu fi am ku koy liggéeyal. këram mais est yaakaar nga ni tey jii muy ku nekk présidence baa nga nekk euh, conseil euh, soci euh, économique et social baa nga nekk assemblée nationale est-ce que yow yaakaar nga ni ñooñu nga xam ni ñoom ñooy suñu député yi. di buum di buum bi. waaw nekk yegg suñu kilifa wala nga nekk ministre war nga du yaakaar ni war nga nekk Sénégal gii. bëgg ni yow da yow da Sénégal moo la ñor bëgg nga mu dox te mënoo jël sa employé dem dugaloo ko ci wutal ko contrat di ko verser loolu mu mën a doxal boppam bu bu parce que tey euh, léegi yow Pape Pape Diop tey lan moo la fi indi lan nga bëgg leeral waaw lu ma bëgg a mooy euh, statut boobu xam ñun moom la nekk mhm. ma bëgg législatif yi xam nga ñu ngi nii di ñëwaat mhm. te kenn ku ci nekk di nga wutaat waaw moo campagne bi sax mun naa wax ne liste sax fi dool nii door nañ ko parce que Euh, kenn ku ne yaa ngi jéem a xool fi mu toll nii foo dugg. xam nga pour mën a pour xool noo nekkaatee député. Mm-hmm. mais balay ñuy président bi nga xam moo fi nekk te xam naa ni bon ci kàttanu yàlla mun na ko fa fekk ba législatif yi jàll. Mm-hmm. mu jël ci ay matuwaay parce que moom jënd na oto yu baax ne député yi mu ngi ko waxee woon ca Mermoz. en 2012 mm-hmm. dinaa leen jox oto yu baax mais wut leen ay chauffeurs yu baax aussi ngeen fay leen lu ko jar. moom moo waxoon na waxoon na ko ñun ñii di wax yow fekkoon nañ fa dégg nañ ko biñ nee ba ci biir am na ci ñoo xam ni lu neex nañ def. xam nga boo nga yor cent cinquante mille. waaw mais moo xam nga man kese bu fekkee man kese maa ko négocié ñi si des négocié wuñu ko te man may chauffeur comme ñoom ma te ma xam naa ni man it même fekkee ñu ngi koy fay te aw ma bulletin de salaire kon jàppal ni maag ñoom ñoo yem tey su ma deewoon sama njaboot day tumaranke moom it amoo dara amoo sécurité sociale loolu laay wax amoo dara. boo dee ñàkk nga te boo li ci gën a metti sax loolu yomb na boo dee yam yomb na mais boo feebaree dañ lay wicc saa jël xam nga déjà loolu problème la kenn du boo feebaree. boo feebaree. déedéet yàlla nga feebar bu feebaree na doon ñetti fan de. bu matee fukki fan dañuy wuti keneen yow mën ngaa toog tu te débrouilles. waaw léegi lu tax yow liggéey bu mel noonu yow euh, si nga bëgg dee wala. déedéet bëgguñu ci dee. buñ sañoon ñu am loolu beneen liggéey bu gën jàppandi ñu la gën a wekk. waaw mais loolu boo ko bëggee. xam nga wala yow chauffeur gi moo la neex. Euh, parce que loolu laa jàng xam nga bu ma jàngoon leneen du ma dem defi chauffeur heure bii ba may jëw nekk ingénieur am na koo xam ne commencé wax jàngu ñu nekk député nga dëgg la tey ñu nekk député waaw mais dañoo buuxante nekk ci liste mais man politique ma par exemple pour mën a buuxante bu dugg nga non dama la jox exemple nga dem nekk feneen que tey fii xam nga da ngay nekk domestique mu doo bëggoo dee nekk domestique xam nga tey ci li ngay liggéey tey mooy li ma lay wax boo amee sa contrat de di ci liggéey ñu lay verser xam nga tey di nga am possibilité sax tey ñëw ni ah man da am naa contrat boo xam ne durant 2012 ba 2017 la muy 5 ans mu wóor na ni yéen ñaar mën ngeen koo fonctionner boo demee lépp xaalis sax xëy na mën nañ lebal 2 millions wala 3 millions waaw xam nga bëgguma nag ñëw ba ci plateau bi. te boo ma tur turam. waaw d' accord léegi boo parce que la aussi. waaw boo demee foofu bon euh, gars yi dañ leen jàppee comme domestique léeg-léeg doo yaa ak lekkandoo wala ak gardien lañ leen di may ak. Mm, waaw man nag sam man ak sam patron wax dëgg yàlla ñooy lekkandoo. Hmm. ñooy àndandoo ci lépp. xam nga mais xam nga du sama statut dong moo moo ma fi téye moo moo fi indi. am na ñeneen waaw parce que on est ñun mat nañu quatre-vingts. te ñoo waxtaan suñu biir ndax bu plénière jotee ñoom bu ñu duggee seen saal di waxtaan di def seeni i seen i seen i loi ñu tam ñu toog suñu biti teg suñu carte teg suñu ataay waxtaan lan nañ ci mën a est-ce que am ngeen association tey waaw fexe nañu ba ba créer benn benn association bu ndaw boo xam ni peut-être pour mu fonctionner sax du fonctionner sax du yomb ndax euh, amagu leen association nag amagu leen statut ndax mënuguñ ko am moom amagu leen euh, maanaam euh, récépissé wala reconnaissance wala loolu loolu laa amaguñ ko franchement bon léegi <laughs> léegi solution bi lan la bon xaaral ñëw léegi nga wax ci sa solution. Maam Tine solution lan la. waaw solution bi mooy euh, d'abord ñu xam ne ne ANCAR. état da ko teg fii euh, moom mooy maillon bu njëkk bu bu nekk en contact direct avec les producteurs. donc di wax ak ñoom am kóolute producteurs yi. donc loo xam ne dañ koy def au niveau waxuma sax ministère de l'agriculture même au niveau des autres ministères nañ ko def. ñu ñu tenir compte liggéey bu encadré. mais mais tey euh, état est-ce que warul doxee euh, si lëkkaloo boo xam ne kuréel yi nga xam ne ñoom ñooy liggéeyal euh, état ñoom su fekkee seen ay domaine d'intervention dafay daje. Mm. dañ ñooñu waruñu toog di waxtaan parce que li ngay wax ni dafa garaaw mooy tey yéen ay ANCAR ak waaye ay ANA yi ñooñu duñ toog di waxtaanandoo mais loolu dafa garaaw. non moom laa lay wax cest à xam nga affaire yi dafa nekk loo xam ne état bi de non euh, cest à dafa nekk loo xam ne ne nit ki boo ko joxul cëram ANCAR moom kese moo fi yor ay agence yu yoo xam ne ne c'est dispersé au niveau national waa ANA amuñu ay agence yu def non xam nga ANA dama joxe aquaculture dama joxe exemple dama joxe exemple boobu rek sànq da bon bëgguma non exemple la voilà ah, dama la bëgg wax ne ne booy fii am na fi programme yoo xam ne ne à coup de milliards te ñu koy yor amuñu ñoo xam ne ne dañuy liggéey si. kii comme ban programme. bon bari na fi. jox ñu exemple Paden ay affaires yooyu. ay naka Paden ay affaires yooyu. donc Paden donc c'est-à-dire beaucoup de programmes yuy appuyer yuy kii mais cest diir dire appui bi mënoon nañ ko jaarale si si organes yu fi nekk. yu mel ni ANCAR wala wala wala service wala service kii parce que gars yi dañuy ñëw euh, et puis lu si gën a graaw ñu si bari ah, dañuy ñëw euh, si zone yi. créer benn séminaire jox gars yi per yu bari les gens ils viennent dem na ba nga xam ne au niveau rural boo fi woowee sax ay producteurs pour rassembler leen ñu ngi calculer ban per diem la ñuy am parce que ñooñu dañuy ñëw indi nit ñi les tout le monde vient ñu filmer ko wane télé c'est-à-dire c'est dafa mel ni wax sa xalaat ñuy gën a feeñ c'est pas les gens qui ont les les meilleures idées. Hmm. donc c'est ça qui se passe donc ministre bi na xool programme yi muy créer. te mu bañ wóolu à 100 pour cent muy ministre de la pêche muy mu bañ a wóolu à 100 pour cent euh, son staff là. parce que ñu si bari sa ministre de l' agriculture. waaw moom aussi dama koy wax mu bañ a def erreur bu ñeneen ñi def. Hmm. donc gars yi ko wër lu luñ koy jox na ko avec les les agences qui sont là. nga xam ne ne du nekk programme yoo xam ne benn nit moo si am intérêt. et puis yéen ñi nekk sur le terrain yéen il faut ñu jël seen xalaat il faut ñu jokkoo ak yéen parce que ñi nekk sur le terrain ñoo xam li xew dem. lépp ñu ngi koy def cest à moom laa la wax cest à programme yi xam nañ lu nekk si kii bi mais dangay ngay ñëw Euh, euh, arrangé wu leen parce que xam nga boo ñëwee nga jaarale ko ANCAR bu soxla woon benn producteur Fongolemi mhm. soxlawul hors mission mhm. da ngay woo direction bu nekk euh, Tamba mu oo agent bu nekk foofu mu jox la information bi alors que bu dee agent agence yooyu da ngay taal oto dem tëdd si hôtel yi boo ñëwee sol sa ah, moo tax nag sol sa mbaxane yor yor mais yéen ñëpp xam nga état ngeen yéen ñëpp ngeen maam tin mhm. moo tax tey état normalement si principe bu état état dafa am ay structures yu décentralisées mais yoo xam ne dañu war a lëkkaloo saa yu état soxlaa benn état dafa war a xàccandoo di dóorandoo ni yéen waa ANA soxla nañ ni leen yéen soxla ngeen waa ANA mais su fekkee état kenn ku nekk dafa dugg si benn ruqam tëj ko mais bu boobaa ñun ñooy perte bon euh, sa sa message lan la Mame Tine suma message mooy euh, euh, nañu jël ñuy jël programme yi ñuy def ñu jaarale ko foo xam ne dina àgg si producteur bi mhm. ñu bañ ko jaarale si programme yoo xam ne ne day jàll après quelque années boo fa jaaraatee ay service national ana seen coow yu ñu doon coow dem fa kenn gisatu donc yóbbu nañ jeunes yi dañ leen di gëm loolu amul parce que un jeune nga jël ko pour deux ans trois ans diggante bi mu peut-être am na salaire mu dem takk jabar am si doom tout ça nga bàyyi ko après léegi loo indi euh, loolu dafa am solo voilà donc lu may tëjee mooy nañu jël euh, kuréel bu mel ni ANCAR SDDR yeeg yooyu ñu dooleel leen. s'il le faut moi je demande même ANCAR ah vraiment euh, le ministre de l' mu ngi def lu lu mën mais nañ ko jël ñu rattaché ko primature nga xam ne ne euh, euh, ministère yëpp seen programme dina ko mën a piloté. Hmm. loolu. waaw ah, loolu tam xalaat la de. loolu la parce boo ko tegee fii kële mën na ñëw ne bokkuñu ministère mais boo ko dewee foofu. Ah, mais mais ki ne bokkuñu ministère kooku moo xamul état nan lay doxee. état ay structure yu décentralisé la mais yoo xam ne dañu war a lëkkaloo pour liggéeyandoo tey euh, ministère du tourisme bu ñu soxlaa ay statistiques ci tourisme dañuy dem ministère de l'intérieur laaj leen nombre d'entrées parce que état noonu lay doxee mais su fekkee yow danga taxaw fii ni kii bokkuñu euh, loolu dafay doy waar. bon mafia bi nañ ko fa dindi rek. saa à dire gars yi programme yu ñuy piloté di ko jox seeni i euh, gars yeeg yooyu. nañ ko bu ñu bëggee développement xam nañ fu ñuy jaar. yan gaa ñoo def loolu non c' est au niveau des ministères. saf yooyu ñooy jël programme yi duñ ko jox foo xam ne amuñu fa intérêt. nañu jël programme yi am na ministère de l' agriculture yëpp am na. agriculture am na. donc jël mais looloo tax ministre yu bari dañ leen di dàq. parce que da ngay dem ñu dugal la ci carcan boo xam ne ne yow doo ci bokk sax mais dangay dem ba nga on se rend compte que programme bu nga indi luñ si doon euh, les résultats yuñ si doon xaar amul. fekk xaalis bi naaw na fekk xaalis bi naaw na. boo xoolee boo xoolee comme lu ma la wax ay pro euh, exemple yu ma la jox noonu c'est comme ça donc nañ ko jaarale fu ñu war a jaar ñi xool lan la nit ñi soxla bu ñu bëggee par exemple exode rural bi kii duñ ko defee noo xam ne da jël booy yi leen village defal leen nga c'est pas ça ñu nekk fii ñu nekk fii Petersen ak yooyu seen i nijaay seen i kii ñooy béy foofu. Mhm. parce que dafa metti ñu ñëw fii. léegi ñooñu fa des noonu boo leen accompagner. ah boo leen accompagner buy dox ñii ñëw ñëwal seen bopp parce que ñii bu ñuy ñëw Dakar indi woo leen donc mënoo leen delloo noonu. koo ci delloo deux ans day delluwaat. donc nañu jël nit ñi ñu kii ko et trois trois mois yu gars yi di béy nañu fexe ndox am gars yi am ndox nga xam ne ne dinañ leen mën a occuper kii booy yi ñooy ñibbil seen bopp hmm. c'est tout message clair et net bon Pape Diop waaw yow nga solution lu mu doon waaw comme législative yi daanaka mën nañu wax ni jeex na ba pare jot na jeex na yi yi passé nii 2012 ak 2017 euh, daanaka jeex na ñu hmm. toll nii ragal naa ni est-ce solution dina mën a amaat pour ñi fi nekk sax. ah yéen de kenn taalatu leen gars yi fi mu toll nii campagne lañ taal. malheureusement loolu moo fi nekk waaye comme lii dana jeex yeneen dana ñëw waxuma ko pour sax man mais même ñi fi nekk ñeneen ñi nga xam ne nar nañ leen récurité ñu nar a ñëw ànd ak ay député ñëw assemblée nationale. assemblée ci boppam bu mu xaar sax ah, chauffeur yi di plaindre wala ñëw ci rajo yi wala dem ci télé yi ndax tey jii man sañ-sañ bi ma ci jël nii ñu bëri mënoon nañ ko jël. ndax man maa ñëw de mais ñu bëri mënoon nañoo ñëw xëy na man maa xalaat ni. yow kenn du la dàq li nga ñëw nii. buñ dañ ma dàq xam naa ni mun na fa yegg mais garaawul parce que nag lii man mii di wax yow arrangé wu ma man yor naa jabar yor naa ay doom di remercier sama jabar mat a mais. su ma gënoon tey loo koy da lay muñal. non mu ngi may muñal. Ah, parce que 150000 néew na de pour ah, dund moom. mais baaw ngay fay loyaas fay facture yi. jëndal mais ñi am 60000 francs ñoo ñoo gën a dee ko man su ma amoon loolu. li ma am loolu man yéen naa sax fay man ma fayuma loyaas sama kër yaay laa nekk ba léegi. ba léegi ba mënu ma am possibilité lu ah, ma. fu ma mee da ngay fas jom nag dem fenn di fay nag lu mu bon bon cent trente mille. sa jom yóbbu la foofu. bëgg naa loolu waaye xoolal. koy tàmbali nag yow tamit. di mm. fay yaa ngi fay facture. Euh, facture courant wala ndox yooyu. yooyu am di déedéet. doo ko fay yow fayoo facture fayoo lu yaas Pape Diop bu ñaagee nag nga yàq jom. déedéet yàqu ma jom laaj ma lu tax ma waxul loolu. parce que sunu kër. Euh, comme ni ko sama ni ko sama yaay divisé dafa wax sama sœurs ak ñoo xam ñoo dëkk ak ñoom kër gi ñii dañuy fay courant kii fay ndox man ma joxe dépense jënd gaz. yow yaay joxe dépense. maa joxe dépense. dépense ñaata par jour. 2500. loolu néew na nag kër gi ah, nekk mais man kese may boo xoolee bu fekkee 2500 kii day jënd ceeb kii jënd diwlin jënd li ciy dem yëpp. tamaate ak ñoom seen yow loolu joxe deux mille cinq cent yu nga ci jënd. léegi ñaata nit dafa nekk. sept personnes. surtout deux mille cinq cent mais bon léegi yow. Ah, deux mille bëgg naa joxe junni de. Hmm. bu ma amoon tey jii lu ko lu ko jar ma joxe ma joxe dix mille ba ma bëgg naa ko soxna si koy gërëmee nga ni. sama soxna. Ah, waaw ndax euh, yàgg naa génn di liggéey ji nekk ci hmm. àll bi ànd ak député yi. n'importe quelle heure non non loolu euh, ma mu yor samay doom samay doom ku ci gën a mag huit sept ans la am. xale la huit ans sax la am astafurlah. xale la donc imaginer yor na ci ñetti bant. Hmm. donc guddi yi moom mooy jóg dina toppatoo yëpp sama yaay aussi tamit. ah ko war nag lu ko war rek la def. ak sama yaay aussi. day sëy sëy ba xëy dee ah. <laughs> ñun moo wax la li mooy suñu yaay yi vraiment euh, ñoo gën a dee si ñun. man euh, mais nag Pape Diop il faut nga kër ga. ma génn kër ga dem luwe yi parce que xoolal gis nga euh, góor tamit da ngay am jom mu jaral la benn moment day day metti trop mais nga dem sanc sa kër bopp. ah mais benn doom bu góor. sama yaay alors waaw mooy su ma génnee yow yow tey mënoo am at yi nga am. Euh, di wax benn doom bu góor. loolu weesu na ma man su ma génnee xam nga mun naa jox sama jabar dépense wala man kese ma dund ak ma mais sama yaay ku koy joxal booba. mais sa yaay doo ko bàyyi. nan laa koy bafee damay jox fee di jox fii ci benn salaire bi ma yor. xam nga tey jii mooy li may wax nii. bon léegi solution bi parce que tamit yow nee nga am na ñoo xam ne ñoo la gën a néew am na ñoom 60 000 la ñu am mais ñu ngi luyaas fenn di di di di mbëkkante yow xam nga si dara. waaw mais imagine ku jël soixante mille francs di mbëkkante nan ngay mbëkkante da ngay liggéey ab député te bëgg ba pare député bi bëgg ngay solu di rafet <laughs> di sol ay costume yi neex di xeeñ parfum yi neex te du la ko jox. ah man de yi ma yor maa ko jënd sama bopp. man dem sax au moins. Colobane Colo mën naa dem Colobane jëndi. bii Colobane. waaye da ngay da ngay def local nag yow tamit nag. bii du Colobane. bii fan la bii du Colobane. sama benn grand moo ko jëndoon. sol ko jotu ko mu a ma kaay may jox la ko waaw ah, moo tax costume bi ëpp la. waaw gis nga simis mais mais rafet na. non xoolal costume dafa ëpp gis nga fii <laughs> ni mu tëllee nii. gis nga xam nga ko simis bi normalement dafa waroon génni parce que costume moom bu nekkul sur ah. mesure rek waroo ko sol. da nga am na bàcc pen bu nekk kolobaan mën na la ko retaayal. ba mu ah. ba gën baax gën a gën a net. parce que da ngay dawalal député tamit waroo sol costume yu jàmbigee nii. ah mais bon léegi eh, Pape Diop. waaw yow euh, lan ngay jeexale. léegi daal li may euh, li may jeexale mooy solution laa bëgg ñu trouver ko ci loolu te Euh, le président Macky parce que ñun jeunes yi. ñu talatu leen de ah, campagne bi ñëw <laughs> yow yaa ko gën xam. xam nga dofoo yow da ngay nekk si oto yi di déglu bu baax. Ah. député yi te député yi dañ koy jàmbataan nee nañ yéen chauffeur si. da ngeen di jël seen ay secret yi ñuy waxante si téléphone yi di ko yoole. Hmm. Pape Diop loolu war ngeen ko baax. ndax tey jii man maa ngi nii sam patron maa ngi liggéey ak moom mais xalaatuma tey jii di wax loo xam ne luy ñaaw la ci. ci ci ginnaaw yéen boo leen toogantee seen biir da nga eh tey président dafa woo patron bi nee na ko. waaw xam nga tey même yow tey jii say ma collègue journaliste di nga toog ñoom débat si affaire bi waxtaan si si seen télé mais ñun tam dañu toog waxtaan si suñuy patron kenn ku ne di nga jëw sa patron sax. bàyyi leen jëw bi nag. mais jëw mi sax doo ci génn. <laughs> non man jëwu man. ah jëw mm, déggu li ma la wax parce que lu tax jëw mooy. Ah, wax ci ginnaaw nit mais ku ma jëw baal naa la man. <laughs> ndax jëw mooy wax ci ginnaaw nit. ça ah. nan nga ci ban <laughs> eh, loolu ma jëwee. ah loolu ma jëwee yow jëw nañ la kay. loolu wax ah mais xam nga ku ku kuy waa jëm sunkara nañ la na nga préparé ndax boo demee dina la dina la dina la dina la ngàdd. ngàdd ñooñu sosal nañ ma ñooñu jëw que ñu ngi lay seetaan chaque jour. <laughs> ñooñu sos man musuma fi ngàdd kenn. surtout waa Thiès ah man ba may dem dañ ma jëw am nga problème waroo dem parce que ki ngay dem moom. boo demee Thiès waa Thiès yëpp sama ñoom euh, Badiane Awa Cheikh Tunkara ñooñu ñëpp euh, di leen ziar sama doomu nday foofu bon euh, léegi lan ngay jeexale Pape Diop. solution bi may joxe hmm. mooy bu lii jeexee hmm. xaw ma kan mooy doon président assemblée nationale. Hmm. wala si caisse de sécurité sociale ña fay nekk ñëpp nañ jël métuwaay yii may wax nii nañu dimbali chauffeur si dañ leen bàyyi wutal leen ay nañu wutal ay contrat de travail. loolu parce que xam nga euh, gis nga li nga wax nii xam nga lu tax mu garaaw. Hmm. mooy li xewoon temps la assemblée nationale ñu leen di jiiñ naan dañu fraude versé ñu ay euh, nu mu tuddati euh, TVA. ak euh, retenue à la source yi defoon député yi. Mm-hmm. te euh, ñoom assemblée ñoom ñooy voté loi yi nga xam ne réew mi moom lay doxee. Mm-hmm. par exemple contrat de travail yooyu nga wax xam nga loolu loi bi suñu loi wu réew moom moo ko imposé nit boo koy liggéeyloo da nga koy defal contrat. Mm-hmm. te ñoom député yi ñoom ñoo voté loi yooyu. tout à mais ñoom gëmuñu ko. Ah. jëfeewuñ ko de. malheureusement. donc euh, réew mi loolu dafi garaaw daal naafeq daf fi nekk xam nga naa naafeq rek mooy wax loo xam ne yow jëfewoo ko. voté loi yoo xam ne yow sa bopp yow yaa koy njëkk a jalgati donc député warul am chauffeur bu amul contrat parce que député bi boobaa mi ngi jalgati loi bi nga xam ni moom si boppam moom moo ko voté président assemblée nationale warul nangu loolu moom moo war a wax député yi ne que yéen yaa leen njëkk war a nekk en règle avec la loi bi ngeen di voté donc suñuy dund si réew moo xam ne euh, assemblée nationale bi dafay dëggate loi yi mu voté mais réew moomu Pape Diop fu loolu mu jaaxal xam nga li tax ñuy tukki li ñuy bëgg a tuxu mais loolu la xalal mais nag dina. mais est yow yéen yéen seen député yéen wax ngeen leen ko. Ah, mais boo ko waxee ñu dàq la. kon yow waxoo ko ba léegi. Hmm, waaye da ngeen ragal. déedéet man man da nga ragal ñu man man départ man franchement sama patron di waxoon na ma ko ne woon na ma euh, bëgg naa ñu def ko soo bëggee mooy avant ñuy commencer soo bëggee ñu signer contrat bi mais bañ ne ba ci biir am na noo xam daal waroon na ko doxalee mais comme doxalewu ko man it ma bàyyi. non mais nga fàttali ko ni ko patron. xam nga waxante woon nañ te ay gor bu ñu waxantee kenn ku ne dafa war a sàmmonte kàddoom. patron. Mhm. dañu war a signer contrat bi. pour ñaari raison bu njëkk mooy ñetti raison bu njëkk mooy man nit laa dañ ma war a weg. Hmm. parce que di liggéey sans contrat kenn wegu la ñaareel bi mooy gor ca wax ja ñetteel bi mooy yow yaay voté loi yi waroo ko jalgati patron bi da nga ko bon yéen chauffeur député yëpp ay ragal ngeen parce que ñemewu leen wax sax seen patron ni que lii sama àq la ak sama yelleef mais kon kon kon yéen bokkat ngeen dëgg la gis nga nit ñun suñ ay réewu Sénégal yi loo fi am yaa ko foqati de fii kenn du la may dara Sénégal du réewu yërmande de kenn ah du fi maye dara dara dara dara dara da ngay dem foqati li nga moom wala nit ñi sa àq seen yelleef dañ koy jël boole ko ñoom seen àq seen yelleef di kundaandaat sa kaw mm-hmm. alors fi am mbokk yi tey suñu taaw seetlu euh, dafa di dégg-dégg bu euh, Cissé Dia di ñu indil Amadou Cissé Dia moom saa su dafay dem def benn jàngat am ñoo xam dafay taataan seen xalaat euh, ñëw indil ñu jàngat boobu ginnaaw gi ñu teg élément bi Cissé Dia di la nuyu la la ziar. waa Pikine yëpp ñoom joor ñoom ñëpp di leen ziar Cissé tey loo ñu indil. tey dama ñëw ci benn kàddu wolof boo xam ne yàgg nañ ko dégg sax li wolof naan bant boo koy jubbanti da nga koy jubanti ca ba mu tooyee lu xaar boobu woowu nga koy que bu wooyee boobu day damm damm mun na ci fekk. maanaam daal euh, loolu euh, wolof lañu naan bant dañ koy teel a jubanti sa tooy tooy ba. Mhm. ndax lu tooy li ñu jubanti. lu wow su demee ba maanaam jàpp booy jubanti mu damm mu damm loolu lu ñu si jublu. ñu jublu mooy ndax mu indi ndax mu indi ko jamono ji sax dafa am ñaari exemple yi ma bëgg indaale ci biir mooy li nga xam ni xew na fi muy série de meurtre yi ak yi nga xam ne xale jigéen ñu ngi koy def léegi ci internet quoi. rey nit yu xaw a fees yi xale jigéen yi def si internet. waaw boo xoolee exemple tey xam nga rey yi am na yoo xam ni fee yi wax nañ ko pare yu ci bëri wax nañ ko mais tey dama bëgg ñu taxaw seetlu ci ñaari point quoi ci rey yi mooy exemple ci motif bi ak ci façon bi quoi ñu waxtaan ci suuf parce que boo xoolee Sénégal tey boo xoolee motifu rey yi fi am nit li waral nit di rey boo ko xoolee tey dafa xaw a terre à terre dafa xaw a ñàkk solo. lu ñàkk solo la léegi la li tax loolu tey exemple tey boo ñëwee xool mën na joxe ñaari exemple rek ci ñaari moto yi fi am boo xoolee waa ji rey nit ci station ba ak balu pistolet boo xoolee détails yu ndaw moo leen boole. saaga ndey ndey sama laal nga sama pneu oto li tax nga kii mu saaga ko mu door ko bal mu dey. tey boo xoolee beneen bi nga xam ne kii mi ngi égorgé Fatoumata Makhtar Ndiaye mu dëkk Pikine mënu la li ñu wax ba xam est-ce que moo am sax mais nee nañ ay ku war a takk jabar la problème bi trois cent mille francs moo tax mu rey ko te xoolal Tounkara eh, boo xoolee ci yeneen réew yi nga gis tey benn euh, bu rey bu def kamikaze boo xoolee motif bi danaa la terrorisme nga gis tubaab bu rey nit ko ñuul mais da dégg si suuf ñu ne la racisme mais xam nga tey boo xoolee xalaat yooyu di nga gis ni kii kat li tax muy def lii xalaatam euh, bo boole na ci askanam wala mu boole ci sax au moins diine mu nekk yaatu na yaatu na quoi léegi a léegi xelu xal euh, Sénégalais bi gàtt. ci ah, parce que ñun dañ ñun dañ tuuti de di léegi problème bi mooy loolu tuutiwaay boobu nag xam nga tey exemple dama am na benn kilifa bu naan El Hadj Ibou Sakho. Mhm. mu a nettali benn xiisa mu ne dafa am benn buur bu organisé woon benn fête mu ne fête bi ba ko organisé waa ji def servir lekk yi. Mhm. ñëw ba ci wetam soof bi tis dal ci mbubbu buur bi. buur bi ne nañ rey waa ji euh, waa ji jël li defoon ci soos bi këpp ko buur bi buur bi ne ko waa mais yow langa def ni yow yaa ngi ma taqal taqal bu ndaw bi mooy bëgg la rey nga bëgg a ñëw nga xottu ma affaire bi soos bi mu ne ko dama la bëgg te dama xam ni boo ma reyee ci motif bu ndaw bi dina ni da nga soxor léegi bu ma la xëppee li yëpp bu ku ko dégg dina ni rey bi jar na ko hmm. est-ce que yaa dégg ci motif ba léegi rey bu jar mooy rey bu ko jar quoi léegi xelu xale sénégalais bu gàtt boobu man pour man dafa dañu am problème depuis le début ça veut dire que monsieur Tounkara seetlu nga benn affaire Sénégal ñu dina dem ba ay vingt cinq ans trente du bokk ci àdduna Sénégal dafa yéex a bokk ci ak jamono. waaw parce que du ñu màggaaleeg ñun ay activité yu tàggal suñu xel. en général da ngay gis na enfant xale bu am treize ans ba bu am vingt cinq ans dara du nekk ci boppam. dara dara du nekk ci boppam léegi mooy waral parfois ñuy def ay affaire xoolal ñi rey pharmacie lan moo tax lan moo tax ki demoon di rey eh, eh, di sàcc ci pharmacie amul xelu ni bu ma jàppee naa neutraliser sax nit ñi door lay ñu xam au moins. parce que xelam gàtt parce que xelam moo gàtt. léegi yooyu yëpp day ñëw ci xale yi ñu tàggal leen bu dugg tey exemple tey monsieur Tounkara monsieur le président de la République Macky Sall mi ngi def ay affaires yu ay infractions yu grave ci ci ci vie religieuse c'est bien ñu ngi koy euh, souligner rafet na trop. mais tey ñun soxla nañ ay centre exemple benn centre formation boo xam ne tey mu ko defaroon boo xam ne day tàggat xelu xale waxuma xam ne fii xale kenn tàggatu ko kenn tàggatu ko am ñu toppatoo daal ñoom Adam ñooñu ñoom ñooy góorgóorlu leen jël xale leen jàngal nan la ñuy defaree ay avion ak yooyu mais euh, ñun suñu xelu xale muy xelu xale muy xelu mag réew mi kenn tàggatu ko kenn tàggatu ko fi léegi ñooñu bu leen defoon formé leen dans dix ans fii dans deux vingt six nga gis xale bu am treize ans tey dans dix ans ci ñu dugal ci fam parce que tey bu woon nag menuisier yi mécaniciens yi nekk ci mbedd bi su ko Sénégal day gën a ñaaw. léegi façon wuraay bi bi léegi pour man ci nit ki la parce que boo analyser ñaari kii xam nga monsieur Tounkara dafa am benn borom xam-xam bu ne nit boo ko jàngalee te yaroo ko yaa ngi defar bànde. ñàkk yar dafa am mais am na ñoo xam ne yaru nañ mais dañoo amul euh, euh, xalaat ci àdduna. Hmm. boo xoolee tey ki rey pistolet. Hmm. boo xoolee ba ci biir ñàkk yar mi ngi fa. waaw xamadi. xamadi mi ngi fa de. parce que ku ku wax nit ñaari moo ci ci lu ndaw nga génne pistolet du xam nga koy dawal 4x4 yor am nga tuuti xalaat. Mhm. mais ñàkk yar dafay feeñ foofu. wër ça veut dire que éducation bi des na te euh, boo xoolee ki ki Ray Fatma Makhtar bu buñ la waxee waa famille buñ la waxee analyse morale bu ñu def réflexion euh, morale bi nu wax nit ku ku yarul la du xool nit du sigi xool nit mais yooyu buñ ko dajalee. en général monsieur da ngay xool benn nit bu nekk ci benn kër dem ba am vingt cinq ans trente ans amul benn métier ay waajuram ne ko am dama wuti permis nga jàngi dawal hmm. mais monsieur Touré mën na dawal te amoo xel tax na nga dawal lu normal eh, yaruta amoo xel waaw ah. waaw loolu da ngay da ngay dof nga dof nga day dugg ci biir affaire yi ba léegi te gars yi rarñu ci compte que léeg-léeg dof situation da koy wane voilà waaw situation léeg nga gis kuy dem nii jàppoo ko dara mais situation ñëw rek nga xam ni kii nekk dof dëkk dof la dof a ngi si biir nit léegi dañuy def ni dof yi mooy ñu nekk fan te ñooñu dañu feebar dof yaa ngi si biir yi mi ngi ci biir nit ñi ñu nekk biir fan di la agressé pour ay trois cent mille di la wala pour ay mégo cigarette di la rey bon euh, loolu euh, li nga wax dafa am solo lool si euh, léegi nag jàngat bi lan la jàngat bi mooy nga may ma dëgg deuxième point bi mooy li ma naan la li xale jigéen yi def léegi waaw monsieur Tounkara Euh, gis nga xale yu jigéen ñi ñu naan dañuy estimé ko di feeñ ci internet bi. Hmm. ñu ngi blâmer déjà ñi nga xam ne ñoom ñoo koy dugal. loolu beneen pàcc la pour man ñi koy dugal c'est autre chose nit monsieur Fit Nougara il faut nga respecter sa bopp balaa nga respecter doomu aadama. parce que dama mës a déglu ci benn borom waxtaankat mu ne dafa am ci jamono yoon di benn nit koo xam ni bu guddi musaan jot buy changer ay yéreem sax day fay lamp yi naaj rus ay cëram. xam nga loolu dégg-dégg daf ci am. ah mais ñun nag tollu dima non non waxuma ci dimension bi de xam nga dimension man nii sax fay ay bu may ma fay sama ay ram. de koy <laughs> mais léegi xam nga loolu xam nga loolu lay jàngale. ça veut nit warul di sàgganoo. Hmm. ba ay cërëm ñu koy gis ma la mu koy. loolu am na solo euh, bañ a sàggan. tey waaw jàngat bi la sàggan mooy jàngat bi mooy il euh, lépp ci base bi la. base bi. gis nga mag ñi su suñu constat euh, seen peut-être ñun ñoo mën a jubanti suñu bopp kenn mënatuñu jubanti mais liggéey bi mooy euh, ñu rattrapé wu ci xale yi ñëw ëllëg foofu mooy affaire euh, loolu dafa am solo mooy euh, tey suñu doom yi war nañ bàyyi xel ne que xew-xewu jamono yi mhm. war nañ leen tàggat ba waajal leen ba ñoom ñu bañ a tàbbi si ndëgg sërëx yi nga xam ne ñoom ñoo am si jamono yu bees yi bon beneen bi moom mooy mag ñi tamit war nañ jéem a yar seen bopp parce que olof yi dañ ko wax si sa jaar mhm. mooy mag mooy faj boppam am na foo boo fa tollee yow yaay xam ne mag nga lii war na la lii waru la nga góorgóorlu jéem si tàggat sa xel hmm. tàggat sa xalaat tàggat sa xol tàggat si say cër te doomu aadama lu mu tàggat boppam rek soo moytuwul na dem looy jeexale bon di wax rek yi ñu am maîtrise parce que lépp ci maîtrise lay jur maîtrise mooy mën a téye maîtrise mooy mën a téye sa bopp am na lu bëri mi koy jur monsieur ñàkk maîtrise loolu loolu lu am la euh, ñàkk maîtrise ñàkk mën a téye sa bopp njaaxum rek lay ñu bàyyi leen ak élément bi nga xam ne moom la Amadou Cissé Dia indi pour dégg montre nu c'est pas bien parce que suñu frères yi ak suñu petite sœurs yi suñ ko gisee dañ naan lu baax la te loolu c'est pas bien il faut se mettre en valeur jigéen moomul loolu da nga xool lu baax nga def ko ak yooyu loolu laa xalaat ci loolu daal. Ah, waa ñooñu moom ñooñu ñoo gën a bon parce que c'est pas bien daal pour xale yi gis ko xale yi buñ ko gisee du lu baax loolu. peut-être que dañoo am plaisir ci loolu ah man moom xaw ma ko franchement non ay xalaatuma ko sama àdduna lu tax moo koy def non je le ferai jamais waaw c'est ça parce que nouvelle technologie moom mooy loolu c'est partout dans le monde donc euh, il faut se méfier quoi. ku rey doomu aadama te tey ko condition yi nga ñu xool ko bu ñu la waree rey ñu rey la. kanda su moom jigéen ñi lu bon la ñuy def di sumi yére ak yooyu moom. ku ko ci def ne la wóor ne ba ba ngay ba àddunay tukki sax moom kenn doonu ko fàtte say doom ak say sët ak say sëti sëtaat ak ñëpp dañu koy xel di génne di génne say awra ko di la ko wax di la publier ci net beeg fépp lañ lay xel di wax waaw lu bon jarde def jarde roy nun lu nuy tubaab ay africain lañu nit day gëm boppam ñi dooni séeréer nañuy lakk séeréer ñi dooni saraxule lakk saraxule te bàyyi tubaab yi ak seen jikko ji nun du nuy tubaab ay sénégalais lanuy africain lanu doonay julit teg ji ku ci def lu bon nan laa bi liggéey yarab nii lii yàlla atte ñoo appelé ko man de loolu laa ci xam roy dàq parce que danoo bàyyi sunu aada yi lii na sunu maam yi baalan ak li wi sëñ tubaab yi nag maam alaaji maalik yi waccan lépp dañu koo jël teg fële maanaam diine ji ñu di ko mbubboo yaa ngi dégg bu ñu demee Touba dooni murit bu ñu jógee demee Tivaouane dooni tijaan te bu ñu ñib seen Dakar dooni tubaab bu nu ñibbisee Ndakaaru moom jikkooy tubaab dong la nu yor li ci li bon la sax nag tubaab yi na ci loolu ñu yor jikkoo ju baax am na ci ñooñ la boo tubaab yi gën a bon la ñuy tànn ñëw dina ko imposé mbokk yi tey suñu taxaw ñu ngi si Nana Aidara Nana saa su ñëw ñëw di ñu defal ay jàngat si ay mbir ba pare di si joxe ay dénkaan Nana la nuyu de la la ziar. maa ngi lay nuyu Tunkara di tey ku la solol ah, am fii si Alaye seen Thiandoum man Lamine ngay tons fii ci euh, usine benn tali moom moo ñaaw lii nee tey si looy wax. waaw Tunkar tey dama bëgg dugg tuuti ci réseaux sociaux yi xam naa nit ñi doyal nañ ci mais man moom du ma ci doyal mukk. réseaux sociaux yi moom mooy ay Facebook. ay Twitter ak WhatsApp Twitter genre yooyu noonu jumtuwaay yu bees yi surtout xale yi ndaw yi ñoom ñoo leen di gën a. voilà aywa tey loo si wax. waaw dañoo seetlu ne jamono ji moom c'est mal utilisé. boo déggee maa utiliser mooy comme que ñun moom tubaab day defar rek sànni ñu ko ñun ñu xool nu mu ñu neexee rek ñu ko utiliser noonu. lu ci bari nag utiliser wuñ ko façon bu baax bi maanaam jàllale wuñ ci message yu baax jéem ñu ci def lu baax loolu noonu yëpp mu nekkul ay affaire yoo xam ne ni surtout ci biir weer bii nii dañ ci remarqué ay affaire yu bëri lu ci xew euh, ci whatsapp laay ñëw déjà weer bii nii gis nañ affaire Cheikh Sarr suñu collègue boobu nekk euh, Sen TV gis nañ problème am foofu ci whatsapp la bon après Cheikh Sarr gis nañ fi Mbathio Ndiaye ñu pare ci Mbathio dem ci Nabouja donc ça veut dire que en en un mois loolu yëpp moo fi xew bañ bañ nag am ñuy wax sax naan euh, waxu mbaaco suul na ba su Cheikh Sarr mais man pour man suulul dara parce que audio yi ba tey ñu ngi fi mu nekk donc lu doy waalo xam ne ne jamono jii nii dafa nekk ci xew. bon boo xoolee ay Cheikh Sarr mbaaco Nabouja yooyu yëpp nga wax. Euh, affaire góor ak jigéen la de. affaire góor ak jigéen la moo ci gën a doy waa Tunkara déjà man damay ñëw ci cas bi nga xam ne peut-être moo gën a choqué sénégalais muy kaawu Mbathio Ndiaye. moo gën a choqué sénégalais yi parce que jigéen nga summeeku ŋàppi say tànk ñu lay foto te bañ lay foto sa déjà du yow kese yow yaa nekkoon rek kersa la pour ñi nga xam ne ñun dañoo nekk ay jigéen. mais kan moo def kan foto noonu moom loolu ay yëfu yow am nga si ay xabaar. bon version yi nag bëri nañ sincèrement parler du ma toog nag que moom si boppam. wax na affaire bi nu mu tëddee. moom ba tey génnagul wax en tout cas wax euh, concerné bi moom waxagul ne lii ak lii la demee. mais version yi bëri nañ du ma dugg nag ni da ko doon yónnee diw wala da ko doon yónnee diw. ay njort la daal ay njort la boo xam ne ni voilà yoo xam mais photo yi seen bopp daal yow yow nee naa yi gis nga leen. sincèrement parler du ma fen gis naa ci yu bari bari bari. wax dëgg yàlla gis gis naa. photo yi googu man du ma ko sax xool. waaw mu nekk loo xam ne ne Tunkara dafa doy waar parce que ñun dañoo am kersa. ñun jigéen ñi dañoo am kersa man ki ko diffusé dinaa ñëw ci moom de mais moom mi nga xam ne moom moo ko def déjà mm. pour commencer c'est vrai que ni ah, d'habitude man du ma juger nit chaque jour dama man maa gën a jubadi donc du ma juger kenn mais bi passé trop xam nga jigéen boo demee tey Tunkara ba mu jaral la nga ŋàppi say tànk nit tiim la di la photo ana kersa Tunkara waaw mais foofu est-ce que tamit euh, Nana nit ñi su fekkee dañuy jëflanteeg par exemple seen jëkkër wala seen i faar si seen si fu privé mais lu ne la ñuy def foofu. non non Tunkara déjà du jëkkëram pour commencer parce que amul jëkkër loolu ñëpp a ko xamandoo mun naa toog ko donc ci tele bi wax ko. Hmm. donc déjà xëy nga photo yo photo sa awra yónnee ko góor sa jëkkër rek dafa bon asamaax nag euh, nga jël mu jaxal la nga jënd ay lingerie di changer di sol di changer teg ci nag yow photo woo sax sa bopp bu doon sax mun naa ne cadre privé tey nga tëju sa biir nekk jël sa bâton selfie selfie sa bopp genre yooyu mun naa ne yow kese yow yaa ko. du selfie mais du selfie dañu dafa taxaw ñu photo ko. dafa toog ci ay lal di changer position mu jaral ko bu jógee ci lal bi dem ci fauteuil bi jógee ci fauteuil bi wàcc ci suuf donc ça veut kon daal yow moom nga sikk. non ma sincère moom sikk naa ko de sikk naa ko trop ndax man def ñoo rusloo. mun waa ñun jigéen ñi. parce que foto yi boo gisee góor di ko yor wala euh, yenn vidéo yi. di euh, am na vidéo sax. am na vidéo góor ñi di ko yor yow en tant que jigéen da ngay rus man ah, fu ko ay jigéen di fu seetaani man du ma fa taxaw. Mm. donc rus loo nañu torop ñun jigéen ji ba pare. waaw Tunkara ñu woon loolu ci moom xam nga li tax. Mm. Mbathio Ndiaye dafa ñëw nekk. xale yi bëgg ko. Mm-hmm. xale yi dañu ne sincèrement qu'on se dise la mais dafa am ñoo xam dañu koo bëgg donc am ça veut dire am na ay xale yoo xam dañuy xool ci moom. ñoom dañ ko dañ ko jàppee model bu ñu gisee di dafa ñaaw waaw mais mais nee naa man tam moom yërëm naa ko nag maa ngi ñëw Tunkara nee naa ku mu dal Tunkara ma maa ngi ciy ñëw beneen côté bi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko partagé waaw gis nga wasaare lu bon lu bon la rek lu wér tey jii nii ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo jël photo yi das ko ci ay groupe parce que groupe boo xam ne ay cent personnes ñoo ci ah. ne yow yaa gën a xam ne moom moo def bu doon seen rak bu jigéen la duñ ko def loolu fa doon ñëw bu doon sa sœur doo ko def bu doon sa la di nga ko sàng sutura bu doon sa dëkkandoo sax di nga ne lii moom naa keesa ñu naan sama biir kër la dëkk wala sama koñ la dëkk du ma ko hmm. def donc asama koo xam ne ni doomu jàmbur la dafa nekk loo xam ne yërmande moo amul si réew mi yërmande amu fi tunkara fii ku la mën a gasal pax pour suul la du hésiter une seconde. ma xam nga fan laa ko xamee li nga wax ni yërmande ci kaawu Cheikh Sarr parce que ñu bëri dañuy wax ni ki ko dugal bon audio yi ki diw moo ko dugal audio ça veut dire que ki ko dugal ku ko jege la. ku ko la donc yow bu dee yow amoo too kersa ki nga xam ne yéen ñaar yéen a daan ne waaw suba ngoon nga def ko loolu weer ko ñëpp di ko dégg. xam nga dootul amati benn crédibilité ci bëtu nit ñi. asama koo xam ne ne bon mu eh, ku la mën a yàq wala yàqal la moom du hésiter benn seconde ñu dul yërmande yërëmante suñu biir mais nan lañu yàlla di yërëmee fekkee kersa jom yooyu nekkatul si réew mais euh, réew moomu dafay bon euh, Nana léegi yow <clears throat> tey jàngat bi lan la. donc ah, daal déjà jàngat bi moom dara kese la man. man personnellement damaa xus déjà pour commencer dama cee xus ba pare ki dugal photo yi tamit waroon naa xalaat ni mbaajo dafa am yaay mi ngi fii di leen dégg xam nga dafa am mhm. ay mbokk donc dafa neexu ci xol tamit nga tiim photo nga gis sa doom def position yooyu moom am na ci part de responsabilité mais man part de responsabilité bi gën a rëy jox naa ko ki nga xam ne tey jii nii moo jël photo yi bi li pande ko noonu ñëpp jot ci jàngat bi nag dara kese la nañ def attention ak WhatsApp mm-hmm. parce que WhatsApp c' est pas du tout sécurisé. Mm. keroog rek maa ngi ko doon expliqué ba sam benn xarit di ko wax nan la ñuy def léegi pour boo waxee ba pare ñu jël say modifié ko. tey jii su neexee nga wax ma nanaa na nga def ma ne la maa ngi fi noo yendoo jàmm après ma jël affaire yi texte bi modifié ko nu neexee nem wax nit wax ci ay wax yu ñaaw fekk ma hôtel bi fekk ma li ma paree def ko ci net bi hmm. surtout di ci feeñ yëpp ñu ne yow ma ko fekk musoo ma ko wax mu ngi ci whatsapp bi vidéo la boo xam ne ne jamono ji nee naa ku ko jot na ko jàllale keneen pour wane ni carrément whatsapp amul benn sécurité hmm. whatsapp amul sécurité ci côté boo xam ne tamit tey jii am naa possibilité yow message boo jot mu ñëw directement ci sama téléphone hmm. voilà donc ça veut ni c'est pas tout sécuriser bu dee am na ñoo xam nañ ciy waxtaan bu dee ay groupe la waxtaanu jàmm la c'est mais bu dee peut-être waxtaan bu privé la nga la dem leen fenn beneen réseaux sociaux wala ngeen wootante directement ngeen éviter daal yenn kii euh, ay whatsapp ak ñoom seen. Eh, allah ma eh, nee nee naa man dama foog ne que tey ñun euh, war nañ war na am ndëpp daal bu am si réew mi ñu ñu xoolaat bu baax suñu suñu bopp parce que euh, da nga ko da nga ko tàmmalee mooy. tubaab yi ñoom dañuy yor benn mbir léeg ñoom ñun ñu jël ko si ñoom te ñun du ñu segg bu baax mbir moomu duñ ko settantal xool nan la ñuy def ba jëriñoo si liy jëriñe ñu jël loolu nan lañuy ñuy def ba li nga xam dafay lore ñu jël ko seppi teg na la te loolu su ko defee euh, ñu ñëpp la yàqal daal parce que image yooyu ngay wax ak son yooyu ngay wax tey ay xale yu tuuti dañ koy yor ay xale yu tuuti dañ koy mhm. déglu te ñu xoolal loolu lan lay def si seen bopp ak seen xel Euh, war na am daal euh, ndëpp boo xam ne ah, benn émission sextape ñëpp naan nanaa lii nanaa laa si ci amee ma. ah loolu dëgg la ah ana mu tey. Ah, sincèrement parler euh, mm-hmm. junior sans limite la nekk daf ma woo ne ma nanaa ba ma nekk ah, mu ne ma est xam nga ne lii waxoon nga ko ma ko ba ko waxee ngeen ma ŋaaññoon. te pourtant moo am. lii nii mbaaco moo feeñ la mais munu ma la wax ñaata jigéen ñoo yor ay photo yoo xam ne dañoo summeeku seen téléphone. def ko ci ay kip CF ak ñoom seen. donc yaa naa tellement daf peu bëri. mbaaco mm-hmm. moo feeñ la de tunkara mais fii nii jigéen boo ci gis am am na KIPCF boo duggee KIPCF bu la duggalee KIPCF nga gis ay photo yoo xam ne yëpp taat neen lañ def lii man may mun a ay dara man maa ko wax dafa am donc euh, cas euh, fii nga toog wax ko ŋaañi nañ la nga euh, am na fii yoo xam ne yu doy maa ngi fàttali bi nga koy wax mooy bi ñu doon wax benn doomu kilifa hmm. diine bu mag boo xam ne dafa feeñ si yooyu nga dànkaafu nit ñi ne leen moytu leen ne que yooyu ñu ngi fi tey lan la ñuy war a moytu ah nañu ba tey rek nañu def nànk ci réseaux sociaux yi bu dee xamoo noo ko utiliser nga la mën daal photo summeeku daal photo di ko yónnee keneen hmm. wala pour le plaisir rek nii nga foto wu denc ko sa téléphone nañu éviter yooyu téléphone bi mën na wadd hmm. mën na réer wala mën nañ ko jël ci yow te hmm. léegi xale yi xarañ nañ macha allah xarañ goo xam ne lu mu codé codé dinañ ko ubbi donc nañ def attention trop trop delloo njukkal sunu ay euh, technicien tey euh, Roxay Daba Mbodj moom moo nekkoon si euh, réalisation bi euh, ànd ak euh, Tafa Sow euh, son ak Petit Dia vidéo Awa Mbaye Mohamed Ndiaye ñoom ñoo nekkoon si caméra yi Mamadou Mbeng moom moo monté émission bi suñu ñawkat di Lamine Gueye fii ci usine benn tali delloo ko njukkal waa Vienne yëpp sama waa kër yi foofu ñoo ñëpp dig daje ëllëg bu soobee yàlla salaam